assalaamu aleykum assalaamu aleykum assalaamu aleykum mbokk yi nga xam ne yéen a seetaan seen émission Télé Futurs Médias am nañu mbégte ak contentement ci altine bi fas yéene nag namuntu ko yéen di la ñaanal jàmm ñaan jàmm ci réew ak bépp réew boo xam ne ak ku ñuy seetaan yàlla dimbali la ba booy seetaan nga nekk ci jàmm yàlla dina la sa stress mbokk yi tey dinañ dem li nga xam ne mooy programme bi Yaya Jammeh dëkkam bi nga xam ne mooy Gambie fa nañ nar a waxtaanee muy conférence internationale ci àq ak yelleefu doomu aadama am nañu koy diingat ne moom li nga xam ne mooy àq ak yeleef moom wéyulu ko ca bi waru koo nag organiser moom ci boppam dina ci yëkkati ay kàddu tontu ñi nga xam ne ñoo koy jiiñ loolu nga xam ne moom nag ñu wax dëgg yàlla doxalu ko ci réewam buñ ci jógee ki nga xam ne mooy Malick Ndiaye professeur ba meraan na ba génn nee na dafa gis Malick mooy wax ci presse ba léegi te mandaam jeex na léegi nag moom li am mooy bu wóor te ñaari fan la may Malick Gakou bu ñu wootewul moom dina tekki noonu mu tàmbali dem créer tamit beneen mouvement bu ëpp bi nga xam ne moom la ñu yor mbokk yi dinañ dem seeti ki nga xam ne nag tamit euh, mbir la ci biir Maison Blanche dinañ ko indiwaat waaye tamit euh, ki nga xam ne nag moom mooy euh, suñu xarit di Hillary Clinton ak suñu candidat di Donald Trump danañ ci ñëw gën ko yaatal ak beneen surprise boo xam ne ma nga ci biir mooy Pa Sonko dana ñëw décortiquer actualité bi mooy toolu courant bi nga xam ne moom la ñu saxal foofu ca biir waalo lan mooy toolu courant mbokk yi dinañ ko ñëw gën ko leeral tey suñu programme émission Kouthia Show ki bi xam ngeen la moo fa nekk waaw waaw bu ki mu dendal nag xam nga kan xam nga kan la dendal ingénieur bu jomba ñaaw bi ñu naan ko ingénieur toog ingénieur toog waaw buñ fa jugee yaawoo gervé moo yor ñaari caméra benn jëmale koo koy yaawoo gervé een yaawoo gervé suñu lumière yi xam nga tey bu leeree nañ ba ñuy gis suñu bopp ñaari yoon kooku ki nga xam ne moom mooy Leuz Saloum Saloum moo fi jaar leeral ko ba mu leer Leuz Lumière ñu ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant mbokk yi nag buñ jógee ci loolu xam ngeen ne vidéo bi ñaari caméra la moo taxit nga am ñaari télé benn bi ci kanam benn bi ci ginnaaw Babacar Bey bu ñu jógee ci loolu waa production yebal nañu ndaw boo xam ne mooy seet ak saytu li nga xam ne moom lañ soxla ci plateau bi koo koy Papa Doudou Thiam ñu am mbégte contentement di gërëm bu baax foofu nga xam ne mooy service régie bu ñu ñëwaatee suñu plateau dañuy jëli ki nga xam ne mooy Fatima Evans moo yor coordination Kouthia Show ñu amaat mbégte contentement bu yaatu ci ñi nga xam ne mooy waa décor ki leen fi jëmmal te teew fi benn jëmm waaye ñaar nañu gis muy Lamine Bayo ak Mansour ñu am mbégte contentement ci équipe décor bi yëpp nga xam ne nag daaj nañu peinture nañu yëngal yëngal nañu waaye ci njiitalu Ndiaga Ndour ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax plateau bi boobu léegi moom la ñuy tiitaroo te réewu àdduna bi yëpp reconnaître nañ ne parmi les plateaux du monde bokk na ci plateau bi nga xam ne moo gën a yànj ndax ci biir palais bi koy defee loolu ñu koy gërëm waa service plateau mbokk yi am nañu mbégte contentement di nuy tamit bu baax suñu électricien bi nga xam ne mooy cëmpi courant bu fi jaare ba normal moo ci jaar ci loxom gërëm nañ ko sant ko moom cëmpi am mbégte contentement ci tonton Pierre bi nga xam ne entretien moo ko yor ñu koy gërëm bu baax tonton Pierre waaye nag mbokk yi xam ngeen ne tamit euh, liggéey bi bu rafetee ba yanj xam ne ne maquillage ka fa jaar di capp-cappal moom mooy Yacine ñuy gërëm ki nga xam ne moom mooy El Hadj Lo metteur en scène ku ca show dellu di gërëm Horatio chef de desk ambiance ci biir ku ca ñuy jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo teew ci ambiance ba kenn ku nekk kenn ku nekk am nga tur am nga sant ñu jiital ci caba ñanga jaara jaara buso ak ki nga xam ne mooy kat yi gërëm tamit képp koo xam ne tamit da nga fi nekk di tëgg muy Go Fall ak Fa Abdou Gueye ñaar ñooñu ñu ngi ci groupe li nga xam ne nag moom mooy groupe Kouthia Show ba tey di tëgg li nga xam ne waaye nag comme que dañu doon nekk ci dëj ñu arrêté sànq sabar yi nank nank rek danañ jël soit ci jàmm ñuy gërëm tamit Aminata ambianceuse ñuy gërëm tamit képp koo xam ne yaa ngi ci équipe Kouthia Show Kara sécurité moo yor suñu Kara ngee ki nga xam ne mooy père Assane Ndom sécurité centrale ak explication média mooy père Assane mbokk yi ku ñuy seeti mbay dikkal dikkal mbay kaay mbay kaay mbay ñëwal ñëwal mbay kaay mbay kaay mbay dikkal dikkal mbay kaay mbay kaay mbay mbay kaay mbay dikkal dikkal mbay kaay mbay dikkal dikkal dikkal waa mbay namoon naa la mbay namoon naa la mbay namoon naa la papa dama la yaay papay xale yi dégg nga yaay papay xale yi ñu ci tàngal mante mos doole bi nga xam ne mooy tàngal bi wóor te fekk démb fekke tey mos dolli mooy tàngal international authentique tàngal bi nga xam ne démb day sawarloo démb mbay tàngal bi bi muy xew boobu juddugoo boobu judd suñu mag yi nga xam ne ak suñu maam yi waaw ak paa imaam yi nga xam ne dañu yàgg séddale teranga ci jàkka yi <laughs> muy takk muy ngénte ak jubale ñu xuloo bii moo ci gaaw ndeysaan mos dolli eh. lii laa ko bëggee mbay waaw ba léegi guubi changé wul guubi changé wul la mu doon saf ca ana yooyu ba tey gis nañ moom lay saf xoolal wuy ma te xam na lan moo ma jaaxal ah. waaw gis nañ fi yeneen tàngal mais bii daf dafay yàgg ku ko gis ne waaw mais tàngal bi anamu waaw moo taxit boutique yooyu da leen ko réclamé ñi nga xam ne ñoo leen koy indil ndax àdduna moom lay wër te dégg naa njëg bi yomb na la doon jar ba tey moom lay jar lay jar waaw ca jamonoy 1960 waaw tàngal bi li mu doon jar ba tey moom lay jar te xale yi tamit dañ koo bëgg man ñi taamu ko ndax ñoom ñoo ko fekkee eh, mbay kontaan kontaan maa mbay lem bii nag. lem bii mooy seen roi de la force. roi nga asthme. waaw règle douloureuse. waaw ulcère. waaw ulcère coono adduna maanaam fatiguement. coono adduna loolu yëpp da koy dindi. benn kuddu la matin avant ngay ndékki. waaw benn lu kuddu le soir balaa ngay tëdd. sama mbay kii du bàyyi ba mu jeex. mu lay soog a woon efficace bi. balaa ngay xam ne dafa efficace nga commencé ko utiliser soo xëyee naan ko ngoon si cawarte ngay àndal boo ko naanee guddi gi soo yeewoo cawarta ngay àndal te mbay li ci gën a garaaw mooy boo ko naanee ci kër gi nekk boroom kër am soxna ci farata sunna Muhammad sa sa soxna dana la gërëm dana la sant yaa ngi tax dëkk yëpp paa yëpp ñu ngi koy laaj waaw nag waaw bàyyil paa yi bàyyil paa yi d'accord <laughs> baal baal après wax la nag li ko soxla ci kër mais solo lii mbay reetaan bu neexee day fekk mu weex bëñ bu amul bënn bënn amul kari bii moo koy faj waaw kari mbay ma ko doon wax lii mooy ministère de l'hygiène et de la santé lii ministère l'hygiène de la santé waaw mooy lii groupe Madar groupe Madar ci set waaw ak sécurité set ak li nga xam ne mooy hygiène ci nañuy dox gis <laughs> gis nga jet jetol bi waaw seetal mbay boo demoon ba xoos benn xoosu bu ndaw mu def dagg am benn genre mm-hmm. genre nàcc bu ndaw waaw jël ko toqal ko wuy ma def ko ci ndox raxas ko foofu mu ah, daal di erré te de waaw est-ce xam nga ni tey laa koy gën a gëm waaw am na sa benn élément jaara waaw dafa dagg sànq waaw fii la toq gis nga mu ngi wér mu werante moom kenn du ko wax gis nga nuuraa bi waaw xetam dafa neex ba pare far ba pare dang ba pare sakkan ba pare am njëriñ ci moom dang sakan am njëriñ. te dafa mel ne du furi eh, eh, dañ koo préparé ba pare lépp c'est déjà prêt. day nga mooy lotis. gis nga madaar bi waaw mooy maama moo ko jur. ma li nuraa mën. waaw madaar mën na ko. mën na waaye madaar dafa jël ay compétence am jox ko nuraa. ne ko comme que gan nga nag. naa la bàyyi nga def sa promotion waaye bu ñu demee ba ñëpp xam la. waaw la ma la joxoon dina si ma fekk. saa moo ko ëmb moo ko léegi nag eh. li nekk ci liquide bi. waaw moo nekk ci omo bi. waaw moo nekk ci omo bi pëndax bi omo bi. xam nga actuellement boo amee tubay bu oos kon sa tubay bi boo ko ci daadee fóot day leer nañ. waaye sama tubay oos ba sa caaxaan waaw après ñu wax ci bàyyi sa caaxaan kawas bu daadee oos boo ko ci fóotee mu bees tàq waaw mayo équipe nationale ah. ak gaaw ci ngembu mbër est-ce que xam nga ni sànneetuma benn kawas ngembu mbër <laughs> mbër bu ngembu rek ak ay gàllaajam loolu yaa ko wax de boo ko ci xoojee <laughs> may dama ragal waay yow man dama <laughs> ragal dama ragal mbër bu ci da lay day rek waa mbay léegi téléphone yi man dama see gis benn affaire boo xamante ne keroog daa am benn dikk laa doon dem Mbour waaw damaa yor tëg no waaw mais bi ma nekkoon nii gis nga waaw dafa am genre andrik waaw bi ma defee nii waaw tapé waaw la affaire naan fararararat rëj na may mbay nii la kaa ma xamal la benn affaire waaw ki nga xam ne dafa yor téléphone bi waaw bëgg woo mbay waaw te xamul numéro mbay fan la nekk waaw ngay def aloo mbay allo mbay allo Mbaye allo Mbaye Mbaye commercial TFM fekk yow bindal na ko ci waaw ne mbay commercial TFM alo mu daane rek mu ñëw mu woo mbay ci loolu benn la ci waaw ñaareel bi Mbaye téléphone bi yoro yaa ko mën a ibbi keneen mënu koo ibbi ndax sa baaraam moo ci nekk waaw te xam nga lan la waaw dafa am ñaar te ñaari yi bokkul mooy ban bii ak bee six ak six plus waaw li nekk ci six plus bi waaw ma nga ca six ba waaye plus ba mooy différence ba plus mooy maanaam la amul ca six ba moo am ca six plus bi te nag njëg li foo dem da koy am waaw booy rabatteur yi dañ koy jaay place yu baax lañ koy jaay yooyu yëpp dinañ ci ñëwaat waaw xam nga prix su ma ko joxee léegi gaa yi dañuy daw song ko dañ dem laaj fu ñu jaay mbay waaw téléphone baax nga nii téléphone ba léegi na mbay waaw man sama rakk nga waaw sama rakk nga euh, sama frère nga waaw dama lay ñaanal yàlla may la fan bu gudd ak wér-gu-yaram euh, gis nga mbay euh, tey soo gisee ma sol lu xonk lii mhm. dara lu dul jàmm rek sëñ man kay roi bu Sédhiou roi Sédhiou roi Sédhiou bi Sédhiou. Sédhiou bi. buuru woon ci weekend bi moo tax vendredi émission amul. Ah. fa laa demoon àjjuma. gannaaw de ma yóbbaale. de defal naa ah. ko mu na ma. waaw jox na ma sër jox ma yëre jox ma maxane na ma solo. lii kay biir xam nga fu ma yóbbu Burkina Faso. Burkina Faso balaa nga biir Sénégal gi boo defee gis ñu woddu. <laughs> woddu laa def ba mu mot sëkk. a a waaye nag mbay. dégg ma non dégg ma rek mbay ah. dégg ma yaa ngi dugg sànq dang ma doon wooyee Kouthia. waaw daaw yàlla bàyyi la fi. nga may wooyee grand. depuis daaw yàlla bàyyi la fi ko ci Kouthia ak grand ñii nga xam ne dañuy wax ay papa Kouthia mooy suñu papa bu leen topp. waaw yaa papa. yaa mag wuy ma yaa suñu papa. yaa mag waa Virgen dégg nga. yaa mag waa dëkk bi xoolal kër gi yëpp yaa leen man damay daane rek. Euh, man foogoon naa bu ñu waxee ne tonton nga sant mag bu dee mag la rek yaa mag ci kër non déglu ma rek tonton ku tudd tonton sant mag rek mag bu ñëwee dañ la koy magale mais man du ma mës a nangu nekk sen papa xam lu tax pa Frigueur ci kër gi la nekk pa Thierno Ndiaye ci kër gi la nekk pa Abdou Aziz Mbaye ci kër gi la nekk déglu ma pa Abdou Aziz Ndiaye Abdou Aziz Mbaye ci kër gi la nekk garmi ci kër gi la nekk Pape Anne ci kër gi la nekk bi ñu xam ne mooy pa yeewtere bii firi bi nga xam ne moo fi toogal xaal ci kër gi la nekk déglu ma ma ñëw déglu ma ñëw man nag du ma nangu nekk seen papa benn yoon mënu ma leen jur te ñooñu ñoo ma mën a jur te doom du jur baayam lu ma maa ngi leen koy araftu nag xoolal lu xonk sur lii ma sol nii ma ba ma man samay wax du ay waxu caaxaan déglu ma wax leen wax leen papa ngi lancé appel le secret le procureur de la république monsieur Serigne Bassirou Gueye au nom de la loi dinaa ñëw déposer plainte incha allah demain au nom du groupe Futur Média porte plainte leen pour ñu mbay bàyyi la dafa non eh mbay s'il te plaît man caaxaruma au nom du au nom de la loi mu ñëw porte plainte ñaareel bi dama koy dama koy dama koy 哎呦！ am nañu mbég ci ak contentement bu mag tey ci altine di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan émission Kouthia Show waaye tamit di gërëm kilifa diini yi nga xam ñu nekk ci réew mi jiital suñu bàyyi sëñ Sidi Maktar Mbàkke yal na ko yàlla may fan bu gudd ak wér mu yàgg ci jal bi loolu ñoo jiite ndax mbégte doon ci ñun tamit ak xel bu dal ci ñun ñuy ziar tamit sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy euh, xalif généralu Euh, kulu murit almaxtum ñu ngi koy ñaana fan bu gudd ak wér gu yaram waaye nag di ci euh, dolli ziar suñu bàyyi bopp di àlaaji Thierno Bachir Tall chef religieux dëkk ci Louga bàyyi euh, Cheikh Omar Tall ñu ngi koy ziar bu baax waaye di am mbégte contentement ci xalif généralu Laayeen yi suñu bàyyi àlaaji Chérif Abdoulaye Thiaw Laay yàlla yàggal ko fi lool suñu kanam waaye nag bépp xalif généraux boo xam ne yaa ngi ci réew mi xalifu Baay la bu bu Medina Baay ak bu Léona Niassène ñu ngi leen di ziar di leen ñaana fan bu gudd ak wér gu yaram ak mbooleem boo xam ne da ngaa jiite tarixa te nekk ci ñu ngi lay ñaana fan bu gudd ak wér ndax ñooñu ñooy suñu bàyyi ñoo yor suñu sécurité ci réew mi ndax ñoom benn waxtu du leen fàtte yan ñu ñaanal ñu jàmm rek ñuy mun a Euh, taxawal yoon bi nga xam ne moom mooy yoonu siraatal mustaqim yoonu diine l'islam tamit daa ci yor drapeau bi yëkkatu ci kaw yàlla defal leen jàmm may leen ko ak fan bu gudd wér gu moo tax dañ leen di gërëm di leen sant di ziar sama papa bopp alaaji Cerno Sama Samora bi di ko ñaanal fan bu gudd wér gu alaaji Cerno Madani Muntaga Taal ziar nañ ko ak alaaji Cerno Bokar Alpha ba a fondé sëriñ Habib Gaye Mouhadama sëriñ Mansour Sy yàlla na ko yàlla defal yaay bopp alaaji Ousmane Ndiaye waaliyu kaamil dëkk ci HLM Angle Mousse ak soxnam Adja Mam Bousso Cissé alaaji Bassirou Baara Mbacke sëriñu Gofal ak Fa Abdou Gueye Gofal nga ak wér gu yaram ko yalla defal jàmm tamit mu yàgg suñu kanam di nuyu tamit sëñ Abo Mbacke ibnu sëñ Fallou Mbacke xalifu sëñ Fallou ci suuf ak raxaji sëñ Abdou Karim Mbacke ziar nañ ko sama baay bopp di sëriñ Mbaye Sy Mansour sëñ Mbaye Sy Mansour dañ koy beral nuyoo di ko nuyoo di ko euh, sargal di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram yàlla bàyyi ko ci suñu kanam mu yàgg fi lool te bañ am benn gàllankoor lépp loo xam ne nag jàmm la yal na koy ñëw di ko ci dal mu koy dundee di ko dundal tamit ñi nga xam ne moom ñooy ay taalibeem sëñ Mbaye Sy Mansour daal mention spéciale yal na ko yàlla defal jàmm daal di koy may fan bu gudd ak wér gu gërëm nañ ko sama baay nekk ca zone A di sopp sëñ Fallou taalibe sëñ Fallou 100 pour cent gërëm tamit sëñ Mama Sougou Waadaan yàlla ko yàlla defal jàmm ak mbooleem taalibe bu nekk foofu ca Kébémer ñu koy ñaanal jàmm Abdou Karim Mangane ak ñaari soxnam Sadio Fatima gërëm nañ leen Monseigneur euh, Benjamin Ndiaye maa koy ziar di kontaan bu ci moom ndax wax dëgg yàlla euh, ku jara ñaanal la ndax nit ku yàlla la ñu koy gërëm di ko sant moom tamit cardinal Théodore Adrien Sarr bi fi nekkoon bi ko xam ne moo ko jox lengee ñu ngi leen di ñaanal ci li ñuy leen jàmm a Sarr chef religieux dëkk ca Budi ak suñu yaay Adja Kine si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane euh, si almakhtum ziar nañ leen mbokk yi di leen gërëm bu baax kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew mi ci jàmm ak li nga xam ne moom mooy ci yoonu l'islam yàlla dafa leen jàmm tey journal bi nga xam ne mooy enquête nee na conférence internationale bi war a am ci droit de l'homme ak ak yelleef doomu aadama nee nañu ca Gàmbi lay amee ci njeexatalu weer bi ak ci tàmmali weer bee ñu jëm lu tax Yaya Jammeh am ay organes ñu ne warul organise loolu ma ngay ut ay tontu di ko tontu ñi nga xam ne ñoo koy dëkkal fu mu dëkkul Yaya Jammeh Baba lañ man saa Yaya Jammeh Gandé Yaya Jammeh Gaynde Gambi Yeah. jërëjëf because it's stupid listen kës kës maa ngi leen di nuyu ku nekk a sa tur a sa lu tax ku muñ rek di nga musa muñ ñu bari ñoo xam ne dañu fooga ne li ma doxale loolu du yoon waaye bu ñu bàyyee Sénégal bàyyi Mali bàyyi Mauritanie ak Cap-Vert Guinée-Bissau dëkk yu bari lii nga xam ne moom lañu ma jox pour ma lifinti ko mais loolu ndam la ndax ku mu neex ak ku mu naari ah di nga ñëw gàmmi ndax dañoo woote ñapaa ñu ñëw ñu waxtaane ak ak yelefu doomu aadama man li ma di doxal gàmbi hmm. loolu ak ak yelef la man li may def nii su nekkul woon lu yenu maanaa kenn du ma ko jox ma organisé ko xanaa suma noon yi nekka si daga yi yaa xam ne gambi dem bitim réew di yaaxa suma der lii xam naa buñ ko déggee bu ñu tëddee du ñu nelaw waaye lii moo neex yàlla lii la yàlla dogal lii la yàlla buga yàlla fii yàlla eh. fii la wax ne fii la xewe

muus yi ginaar yi jinaa na yëpp a génn ñu teeru waa léegi lii lii lii lii lan moo ko gën a lii lan moo ko gën a cuqa lu cuqa ba cuqa ba neex ba neex adduna wër keneen ñu ne am na daga boo xam ne mooy organiser ak ak yelleefu doomu aadama Sénégal dañu foogan hey ku la askay la ku lu xew rek ci Dakar la xewee léegi hmm. xooleen Gambie nu mu tuute Sénégal mooy gémmin Gambie mooy làmmin lu gémmin reere làmmin moo gën a tuuti ñoom balaa maa dee ah. ñu dem seen hôtel yooyu ñu defee seen conférence yaakaar ne lu xew rek Sénégal la war a xew léegi xoolal Gambie nu mu tuutee ah. ak Gambie nu mu cikkilee ah. ak little people is it little is a country Gambie is people ñu bàyyi Sénégal bàyyi daka yëpp ne Banjul moo ko organisé waaye lii lan moo lii lan moo ko gën a am na ñoo xam ne seen xool yi ñi ne ñooy xucco ak man gambi ak daka yi nga xam ne buguma tudda borom daka bi nga ne moo am coow pétrole bi xam naa xool baa ngi jeex te moom daka boobu mu nekka daka bi nga ne boo génnee karang nga teg ci kaw te Kaolack sax fan yii suma xel mu ngi ci Kaolack. Ah. Kaolack Banjul la bokk. Oh, Kaolack ci Gambie la bokk. Ah, dama am ne mënuma boole Casamance si man. dagañ ko. mais suma xel dafa nekk temps nangu Kaolack sax. Ah. ndax boo demee Medina Baye. su yapa yapa bu amee gàmmu Medina Baye Banjul kenn du fi des. ñi apasene ñi ñoo fii yëpp fu ñu jóge Saalum est am ngeen ne suma xel suma daf ci nekk ah. fan yëpp maa nga bëgg a coka Sénégal ah. tuuti ndax comme que ay Malick Gakou ah. ak ñeneen ñu tuuti ñoo koy cokaas mu leen di sane ay lakari boset kon moom est-ce que def na ak ak yelefu doomu aadama gis nga moo tax affaire yi du Lamine tubaab yi maa leen di jaayal na parce que affaire ak ak yelef doomu aadama ñoo ko di saytu lii lan moo ko gën a lan moo ko gën a cuqa seen ñu nga bon ñu ngay dee eh si jàngale bantaala a sela ka si la jantaale de sira la montoole li ma bëgg ngeen mooy ah. <laughs> man gisuma seen président boobu naka daka bee daka bee nga xam ne moo am pétrole coow gisuma ko waaye xool bi jeex na ndax dañu yaakaar ne jànga français wax tubaab yakati ñanga ñangalu mooy tax tubaab yi nga organiser da ngay def kon man ku wax nga tëj ku nara dekoo ne nga ba pare bu àq ak yelefu doomu aadama ñëwee ñu jox la ko lii neex xanaa cuqa waaw waaw ma xama neex cuqa neex a cuqa a neex a cuqa a neex neex neex cuqa neex neex cuqa cuqa neex cuqa doo fecca fecca la nga sax neex cuqa cuqa neex neex cuqa doy na doy na cuqa neex neex cuqa neex neex cuqa neex neex cuqa a neex a neex cuqa xanaa neex neex a neex cuqa xanaa neex neex malade. am ñu mbégte ak contentement bu mag di gërëm bu baax euh, Thierno Mamadou Adama gay xalif bu Thierno Adama gay nekk ca Ñank Edi ak mboolem taalim bi boo xam ne yaa ngi ci Ñank Edi ñoom Baye Aliou Diagne ancien combattant alaaji Landiori Gueye alaaji Mamadou Niang Baye Aliou Ndiaye Taxaru Si Mamadou Ali Biran Niang ak euh, Thierno Mame Fama Gueye ñoom ñëpp ña nga ca Ñank Edi ñu ngi leen di nuyu waaye di nuyu nag sama wëlëre Serigne Gora Seye président mouvement les serviteurs de l'islam ziar nañ ko bu baax Oustaz Cheikh Tandian nekk ca RDV ñu ngi koy nuyu bu baax bu gudd ak waaye di nuyu tamit euh, Pape Sey nekk foofu nag euh, ca jàmm gën ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram taalibe Bamba la Bambi Sila yaayu Chérif nekk ca Paris ak bébé Khadija ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu tamit euh, Cheikh Baye Cheikh Mamour Insa Diop chef religieux nekk ci Dakar ñu koy nuyu nag ak Cheikh Ababacar Diop Cheikha ayda Diop nday Fatou Diop Ndeye Daba Diop ak ajaratu Soxna. Euh, Khady Sall ñu ngi koy nuyu moom ci angle Moussa Blick Diop Pape Ousmane Diop euh, di nuyu Fëgala soldaaru Baye Mamour Insa Mouhamadou Kassé ñu ngi koy nuyu moom tamit ak euh, soppey Baye Cheikh Mamour instant Diop ñoom Zakira ñu ngi leen di nuyu ak Thierno Insa ñu ngi koy nuyu ñoom Alassane Insa ñu ngi leen di nuyu waaye tamit di nuyu ñoom Daba ak Bijou kii nag nee na Kouthia boo tuddee sama tur dinaa kontaan lool mooy Yaxya bu Baye Mamour instant ñu ngi koy nuyu nekk ca Paris Yaxya bu Baye Mansour Insa ñu ngi koy sant di ko ñaanal fan bu gudd ak ñoom Seer Insa Diop yëpp ñu nga ca Paris jàmm suñu suñu bàyyi bopp Serigne Babacar Abdoul Aziz Sy xaritu Serigne Mbaye ñu ngi koy ñaanal bu gudd gu yaram waaye di ñoom Fanta Ndiouk ñoom Khady Ndiouk Fat Bintou ñoom Awalo ñoom Banna Jonn madame Ndiouk ñoom Ndeye Penda Ndiaye madame Ndiouk Paté Ndiouk Mansour Ndiouk sama xarit Alsan Lo ak maire plaignante Mariam Seydi ñu ngi koy nuyu di am mbégte contentement ci Euh, Serigne Abdou Salam Ngom ak raqa ja yëpp ñoom Serigne Saliou Ngom maam Thierno Ngom Sayer Ngom Fallou Ngom dëkk ca Ndiakane ca Bambey yal na yàlla defal jàmm Serigne Fallou mbake docteur ñu ngi koy ziar di ko ñaanal fan bu gudd Serigne Saliou Mbacke ibnu Khadim Mbacke ibnu Ibrahima Mbacke bu Khadim Rasoul ñu ngi nuyu tamit Serigne Mamor mbake ca Amokat cantam yi muy am le 28 le 29 octobre Kouthia da cay teew ndax bëgg na ko daal wax dëgg yàlla wanal ak taalibe yi ñu jàpp El Hadj Abou bu baax a baax Serigne Amsatou Mbacké fils de Serigne Soubérou Mbacké Baye Fallou borom daaru ca Pikine euh, ñu koy ziar di ko ñaanal fan bu gudd ak yaram maam Thierno Mekhdad Mbacké ñu ngi koy ziar waaye tamit di nuyu Serigne Abdourahmane Mbacké nekk actuellement ca États-Unis ñoom bébé Yacine Fall ñu leen nuyu soxna Oumou Mbeng ca Wilson Euh, foofu ca salon bu nuyu nañ ko ñoom Papi Fall Djibril Fall soxna Valéra Fall ña nga ca États-Unis ñu leen di nuyu di wax joyeux anniversaire à Khardiata Diallo dit Sira depuis Thiaro ñu ko nuyu joyeux anniversaire euh, ñaari jumelles yi Awa jaw ak euh, Awa Diaw ak sal Diaw ca rue 11 ca corniche ba ñu ngi leen di ñaanal fan bu gudd ak yaram di am mbégte contentement ci Kiné Mbaye madame Diagne nekk ca France Sedan ak borom këram ñu naan ko Jibi Diagne sama xarit sama wëlëre et son ami monsieur euh, Amath euh, professeur Amath Dansokho ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram Aliou Cissé entraîneur équipe nationale sama xarit la ma koy ñaanal mu am ndam di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ak victoire yu am solo de la part de mon euh, de ma chère amie Kiné Mbaye madame Diagne ñu ngi koy gërëm waaye di am mbégte contentement ci képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show di wax tamit Koumba Diagne chéri Matar Sey Euh, ak seen doom bu ñaan caane sëy ñoom ay soppe euh, Abou Bilal nañu ki ñu yónnee nag message bi di Awa Muntagali chéri Muntagali nekk ci Régis ci kaw Matar Ka boutiquier nee na Kouthia fii laa def sama biir xol waaye di wax joyeux anniversaire à Fatima Ly princesse des Torodo kooku doomu Muntagala suñu bàyyi bopp di professeur Alpha Dat ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram mbokk yi yaakaar naa ne ñu ngi gën a am ay mbégte yu yaatu yaatu yaatu ci biir émission Kouthia Show di nuyu tamit euh, Thérèse Da Silva Euh, ñu naan ko Tine Touma ak ñoom Betty ñoom Mado ñoom Gilles euh, Christ ñoom Nima Fatou Bintou ñoom Sarah depuis Grand Yoff cité millionnaire di nuyu tamit bu baax de la part de Lamine Bayo di nuyu tamit bu baax Djibi Niang euh, kooku sama jarbaat la suba lay def anniversaire am koy souhaité spécialement di ko ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram mbokk yi nag fi ñu jëm moom mooy ànd ak tàngalmante mos dolli seen roi de la force seen marketing distribution moo ko yor Mera ak Jetol ak gunge ak plus bii nga xam ne 6 plus ak 6 simple bi téléphone la bu mucc ayib am ko njëriñ la développement la waaye li ci gën a neex mooy kenn du ko sàcc koo sàcc boo defee ko bi mu daal di génn mu weeru nga xam ko professeur Malick Ndiaye nee na Malick Gakou mu ngi naq saale bay prolongé li nga xam ne moom mooy mandat bi te loolu nag du ko nangu tey du ko nangu ëllëg naan na pour lancer appel pour nit ñi bàyyi xel ci naq saale bi Malick Gakou di naq saale naq saale professeur Malick Ndiaye ñu seeti ko ngi leen di maa leen maa leen di maa ngi leen di bégee ni ko xale di waxee maa ngi leen di bégee maa ngi leen di happy waaw dama leen di laaj ndax yenoon na maanaa war a yenul maanaa bu yenoo maanaa ngeen ne ma waaw bu yenul maanaa ngeen ne ma déedéet Malick Gakou ñun man Malick Gakou Mamadou Diop Decroix Sonko Mout Ban Déthié Idrissa Seck Abdou Mbaye Omar Sarr ak ñeneen ñeneen yoo xam ne bu ko doon lim fi tey fi nañu fanaan ñoom euh, euh, euh, Mamadou Diallo dañu waxoon ne suñu kuréel bii dañu koy def benn kuréel bu kenn ayee weer bii bu jeexalee ñamal sa morom mu aye xam nga loolu moo yoon léegi Malick gàkku bu mu ayee ba tey paase na weer ma ngay naqasaale di ci teg ay fan te li mu bëgg moom la ñëpp bëgg est-ce que yenu na maanaa est-ce que yéen na maana waaw waaw moom moom waaw moom Malick Gakou yàlla moo ko may man nekkoon naa ministre conseil bu Macky Sall ñu xëy dàq ma ñu xëy dàq ma xam nga lu tax Macky jaaral fii mun a du jaar fii fee jaar ma ne ko comme ko bëggoo jaar fii man maa ngi jaar ci yoon bi génn loolu moo ñu jotale euh, gis nga dëkk bii boo amul euh, xaalis euh, bëri wax duñ la te man yoruma xaalis te bëri naa wax moo taxit duñ ma bëgg a teg ci prasu fi ñu waxee waaye Ablaye Wade moo fi waxoon wax waxet de jóge fi Macky Sall wax waxet toog ñun nag ñu doon bañ wax waxet ña ngay waxati waxet waaw Malick Gakou moom wax naa leen ko fi barki démb bi ma ñëwee mënumaa ëppalee dara Njaay laa sant bu dee jiite rek Sénégal lu mu sant te ñun njaayeen yi nekk senegal jot na nag senegal bi sant njaay njaayeen jiite ko waaw Sénégal bi sant njaay bu ko njaayeen jiitee bu ko jiitewul ñu bàyyi ñi nga xam ne ñooy xëccoog oppo gouvernement bi ku sant njaay sax jiite ko waaye nag moom mu jël gàkkoom xam fu mu ko gàggagalee ba ñoo bëgguñu koo gàkku bëgguñu koo gàkkal bëgguñu koo gàdduloo ñun ko nangu waaw man nag dañ naan waaw professeur Malick Ndiaye waaw dafa bëri wax waaw waaye li may wax yëpp boo xoolee ba ci biir dëgg la xëy na yoruma xëy na damaa yor lu may joxe wala loo xam ne dañ koy luwee ay yooyu waaye wóor na yàlla xam bi ma am suñ ma mayoon ma aye weer billaay Macky Sall dinañu abal ndax ndax man ndax man yàlla moo ma may xam-xam élèves yu ma mës a jàngal yëpp est-ce que mës nga gis classe bu amul ndaare musul am de classe day am ndaare man maa jàngal école ba mu jeex sama classe amul ndaare ndax xale yi may jàngal yëpp damay def seen bopp ne ñëpp pay ex aequo classe boo xam ne cinquante élèves ñëpp pay ex aequo musul am mana sama xel-xel moo xam-xam moo màcc ci yoon kon doomu aadama ma waaw maa ngi gis mais je kon non ba di leer na déedéet ma ñëw ma ñëw ana ana verre ah, ah? maa ngi ko gis mais je vois en deux ah lii moo koy def pour non maa ngi gis verre yi ah, maa ngi gis mais je vois en deux waaw moo yéen daa la maa ngi gis mais je vois je vois en maa ngi gis maa ngi maa ngi leen kenn ku nekk maa ngi leen gis parce que pour wala na maa ngi gis costume bu ñuul laa sol ak cravate bu rouge non ok voilà voilà voilà kon Malick Gakou Malick Gakou li mu bëgg duñ ko ko may dama leen koy wax ngeen dégg ko maa ngi for sax ci ay noppu xale ñu naan waaw Malick Gakou moo leen gën a coofe waaye ñun duñu ay jën ay nit lañu benn ñaareel bi bu dee sañse la ma waxaat ko te dee lan la ma Malick Gakou ëppalee ci sañse ne dama leen di laaj moom Malick Gakou lan la ma ëppalee ci sañse bu dee costume bu jot bu dee tubay bu jot bu dee chemise bu jot bu dee karawaat bu gudd dama ne kon man lan moo ma tere de man Malick Gakou lu ma ëppalee costume boo koy sol day jot tubay day jot chemise day jot karawaat day jot dit day jot tubay day jot ceinture day jot veste day jot karawaat day jot man lu ma ëppale waaw. ah. xam ne man ngay waxal man MC Galaxy nañ may wooyee. tuut ba tudd na sa bay galay lan may gàtt. waaye Paa kaay déglu sound yi nga xam ne moom laay dóor ci kaw town bi ah, nga wax ma si sa xalaat Paa. maa ngi nii bay galaay moytuma sa yat dama gul te fàtte wuy sayduma down down man la MC bay down sound sound jéem a bay am nañu mbég ci ak contentement bu baax euh, ci clip boobu ngeen gis euh, mu nekk duo Kouthia ak Horatio mu nekk clip maison bu ñu ne clip maison maanaam ci kër gi nañ ko defee génn ci kër gi ñi ko réalisé nag euh, di nga xam ne nag moom mooy Racine ñu leen ciy remercier ci liggéey bu rafet bi nga xam ne def nañ ko ci ak effort bi nga xam ne def nañ ko ci boobu léegi ñu ciy liggéey def ay retouches yu baax am solo tamit loolu nag mooy wane ne vraiment c'est dio duo d'enfer boo xam ne wax dëgg yàlla ñooñu tamit ñu dara sargal na ñu jara gërëm na ñu ndax Euh, maa ngi ñoom depuis ca sargal Koutiaba ñu def ci liggéey bu rafet bi tamit bi produit bi amee dañoo ñëw na ma doo ko defee fenn da nga ñëw teg ko suñu loxo moo tax it gërëm naa leen ci sant naa leen ci liggéey boobu nga xam ne nag dañ cee xarañu daa dee bàyyi ay effort yu bëri nag euh, moom Mbisaan Ndoye ak euh, Racine bi nga xam ne nag wax dëgg yàlla noonu la mën a mel Racine noonu la mën a mel ak Mbisaan wax dëgg yàlla seen xol rafet fii ci télé bi ñoom ñëpp kenn ku nekk amoon nga yéene defar li nga xam ne mooy clip bi muy cameraman muy réalisateur ñoom ñëpp daal amoon nañu yéene bi waaye xam nga ñàkk jot bi ci télé bi rek waaye kenn ku nekk daal sa yéene ak sa xalaat indi ko ci ñu baax moom euh, Racine di ko ñaanal tamit euh, ak Mbisaan yàlla euh, dëgëral seen loxo tamit musal leen ci cat ak làmmiñ yàlla defal leen jàmm te tamit promotion bi nag ci seen loxo la nekk ndax maanaam li muy saf ko ko macc ko xam ñoom ñoo ko safal noonu kon ñun ñu koy macc bu soobee yàlla incha allah allah ne ko nit ñi gis loolu nag ñu ngi ciy rafetlu tamit euh, tunkara tunkara bi nga xam ne moo invité woon góor googu nga xam ne moo demoon ci plateau bi ndax loolu moo ñu inspiré bañ daal di koy def mu daal di jur lii euh, lancement bi la rek am na beneen lu ci nekk waaye nag bu loolu ëmbee yëpp ngi gërëm Ngaaka Blindé bi nga xam ne moom moo produire boobu nga xam ne Kouthia ak Oration ñu ngi koy taxawal loolu moom mooy single bu njëkk bi am na yeneen version yoo xam ne ñu ngi ci biir yu doy waar yoo xam ne nag euh, fii ba fin d'année di ngeen ko gis mu nekk ay duo yu am solo yu kenn musul xalaat ci monde musique mu ngi ci biir Euh, mbir mi ndax na du caaxaan mbir yu am solo la ñu ciy gërëm bu baax ngaaka blende mi nga xam ne dafa yër yëkkati alalam def ko ci te nekk koo xam ne nag suñu frère la suñu raq la ñun ñoo ko mag fuuf waaye gëm duo boobu moo tax nag mu dugal ci xaalisam merci waa Séné euh, Sénérix mooy euh, Sén Lyrix studio bi ñu ko defee ak Fa Abdou Gueye ak Go jàpp tamit ak ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci di tamit Kara moom tamit morceau bi ba mu génnee ba léegi wax dëgg yàlla bokk na ci ñi ko njëkk apprécier yi kontaan nañ trop léegi nag dañuy def mooy konaat ñëpp ak ñu ngi am mbégte contentement maire Ndeye Selbé Linguère Diouf présidente GPTS ñu ngi koy nuyu Modou Samba Gningue chéri maam euh, Leyti Gningue euh, ñu ngi koy nuyu ak euh, depuis Kawoon ñu ngi koy nuyu nekk depuis Kawoon Serigne Abdou Karim Mbacké xaritu Caba Touba ñu ngi koy nuyu Soda Fall chéri Cheikh Fall Garmi Touba Daaru Xudus nuyu nañu ko ak Mounas Faye doomu ndey Ñaaña ñu ngi koy nuyu ay Ngom depuis Paris salon ndey Ami depuis Thiaroye et ses élèves bëgg Kouthia waa waa waa Euh, ca caaro yi tëli euh, tëli Diallo ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte ak contentement bu mag ji ànd ak si ñun émission Kouthia Show waaye di gërëm tamit Ndeye Issa Diouf Chéri Matar Ba yaayu Nafi Ba ak Pape Abdou Ba Junior ñu ngi koy nuyu Nicolas Ibou Ba Pape Mbaye et toute la famille Ndeye Issa Diouf Chéri Matar Ba ñu ngi koy nuyu di la ñaanal fan bu gudd ak wér yaram waaye tamit di nuyu bu baax ki nga xam ne moom mooy euh, Ndey Issa di xaritu Maam Jaara nekk ca Fatick Nguuda euh, Diamène Couture ñu ngi koy nuyu nekk ca Tali Maam Jaara Chéri Sadio law bi ñu ngi koy nuyu mère Ngone Kanté yaayu El Hadj Lo Pape Ndiaye Daba Fall ak mère Soxna Gueye maamu El Hadj Lo nuyu nañu ko ak euh, Mbay Ba Aïda Ada Diagne Tailleur euh, El Hadj Troupe El Hadj Troupe Taarey Daarey Xamle ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ñu am mbégte contentement boutique Moussa cité Asegna Wakam ak son frère Matar Ka notre sœur yëpp ñu ngi l di nuyu Marème Kane madame Guèye Cheikh Abdou ñu ngi am mbégte contentement bu mag ci moom mbokk yi nag dañuy dem nuyu. Euh, euh, euh, Youssou Ndour actuellement nekkul Sénégal mu ngi États-Unis mais grand bu fekkee ne yaa ngi seetaan émission bi dama bëgg nga joxe note de service pour nga du wax ne ñii li ñu may papa bi bugguma ko. man danaa dem maa ngi interpeller le le procureur Serigne Mbacke Gueye oh non lii yëpp tonto mag moo koy moo nekk ci ginnaaw di ko mën a gaase pas gént moo ma mag pas Thierno Ndiaye moo ma mag ñoom ñoom ñoom Abdoul Aziz Mbaye ñoo ma mag mais ñooñu ñoom ñooy paa yi man ma paa yi te nag bu ñëwee tonto mag ak ak ak Pape gune gi Pape Cheikh ñoom ñooy plaignant numéro un yi may plaider. léegi mën nañu yéene loolu baax na man nag may man nag man nag nañ ma fi morgu daa am ci loxo ku mu koy teg baax na may lancé ay euh, ambianceuses yu bëgg ñëw Kouthia Show mun ngeen ñëw suba ñi fi nekk ñëpp suba duñ ñëw comme que ñoom dañ cee ànd ma defal sama bopp ambiance man sonko sonko soxlawul Sonko bugguma Sonko ku leen ko sant dama mer waaw man su ma amee tur Sonko yàlla ak ku Kouthia moom wax na man ñu ngi koy tooñ TFM waaw loolu ñu koy wax bu leen ko bugul bàyyi leen ko Kouthia wax na dëgg Pa Firi Gent moo ko mag Pa Cerno Njaay moo ko mag Abdoul Aziz Mbay moo ko mag ak ñeneen ñoo xam ne dañu wàññi seen at pour bañ a bañ a retraité ñoom ñëpp borom yéen yi nañu leen xool kër gi ay ponkal màgget ñoo fi ne waaye bañ a dem retraite moo tax ñu wàññi seen at waaw nañu bàyyi Kouthia Kouthia la tudd ñu ko woye Abu Bilal bu leen nangu di wax ay pap bu bugul loolu bàyyi leen ko ñun nag ay soose nañu te soose ku laal doomam di nga ko di nga ko waxal ñun Kouthia dafa ñëw ba ñun mu ne denk nañu boppam kon na ngeen ko bàyyi na ko bàyyi de du kookoo leen ko bàyyiwul du baax ci eh yoo ñabali léegi man dama xamul dëkk bi Malick Ndiaye li mu wax noonu la nit bu ñamee nga may ko tuuti mu ñam keneen ñam lii Macky Sall bu ko seetaanee da leen di waaw waaw da leen di day wax ne ndekete ñi manko ñu pour wattu Sénégal dañoo manku pour wat watante <laughs> dañuy watante kay dañuy watante te bu ñu watante karaw du fa des léegi Macky Sall nan lay defee toolu courant man dama ko dégg ma tiit ma ne toolu courant mooy lan ñu ne dañ fay bay courant ndekete énergie solaire bi la gis nga dëgg bu jotee nañu ko wax Macky Sall lii mu def nii liggéey na waaye wax dëgg yàlla liggéey na nañu wax bu liggéeyee ñu ne liggéey na bu liggéeyul ñu ne liggéeyul man de Sonko man la concerné waaye Macky liggéey na Macky soo tëddee nga nelaw lii nga def ci waalo boo ko defee Sédhiou ak Bounkiling ak dëkk yi nekk Casamance yëpp Senelec du fa taxawati di laaj facture ndax jaww ji ñoo ko moom moo ñu ko may buñ ci jëlee ba am courant baykat bi dootul son ndax pompe bi ñuy pompe pour mun a raché tool yi ci courant bi nañu koy jël léegi courant yàlla bi kan moo sañ a lekk xaalisu yàlla yàlla jox la courant bi eh, eh, jantam nga jël ti ni di ko fayeeku nit soo deewee yàlla na la ana suma xaalis bi koy wax Macky Sall liggéey nga bii de xaw ma ban waaye liggéey nga bii waaye nag yow del woote del woote léegi damay dem kër Macky fii dama am rendez bu foofu tey damay bañ cat topp ma dama am rendez bu ak Macky ci kanam tuuti ngeen ñaanal ma ma dugg jàpp ak maa ngi nii yaawo bu nekk eh, yaawo serve bu nekk TFM moom nañu boole man pour bu ma génnee mu defar ma interview maa ngi nii di dem léegi ñaanal leen ma jàmm yéen seen soxla yëpp dinaa ko wax su ma duggee wax ak Macky su ma génnee ngeen xam ne maay Sonko xaar leen rek ma dem dem kër Macky <laughs> salaamaaleykum salaamaaleykum xanaa pale bi kenn nekku fi salaamaaleykum ah ma wiiri ah <laughs> woo na ma maa ngi jëm yow de amoo métier amoo poste amoo place rab du loolu kese naa la won ne amoo kalaas xoolal sa bopp bi sa dàll yu rëy yi sa taksi biti yow est wér nga yow nag paa dafa mel ne sibuloo lii mooy check down dafa mel ne complot Balla Gaye Modou Lo Eumeu Sène Gris Bordeaux ñoom ñëpp xam nañ ma hip hop c'est mon boulot yóbbu naa la daara Iran daw ngay daw ba jàngiwoo ma yóbbu la Ali Sall ngay daw ba tariwoo Salman and MC White that I love you ma Donald Trump léegi gis nañu real kanamam waaw góor goo xamante ni faalewul jigéen toppatoowul jigéen moom daal jigéen ñuus dong la ci xaam xam ngeen kooku moo yees dafa weesu yees nee na nag cooli cooli cooli yëpp man maa ko soow loolu la ñuy xam tey jii ndax jigéen ñi ñu ngi nii toog ñoom ñooy wax ju dégg nettali ci gémminu gorom yow waxaal lan la la def oh no oh my god oh dafay jël seetu di ko laal fi ngay dox bés bu jot pour dem liggéeyi comme ça muy xool lu nekk ci sa suufu jupe oh is what is that He's a very dirty man. Oh, what? Oh, oh. So, maintenant, sol booy dem liggéeyi. Oh, but It's a very good solution. Bravo. Ah, yow, waxal, lan loo def? No. No. No. Danga bokk ak moom avion? mu di leen ah, ah, ah, mu lay lambatu c'est-à-dire di leen lambatu fu mu la la la lambatu a oh no ba oh my God what is this man waay don't understand ba foofu no kii dafa feebar dafa war a jël ay garabam non mais c'est pas possible Donald Trump non si nit ah oui yow lum la def daf la foon par la force ba pare mu màtt la ah fu mu la màtt dafa mujjee infecté marché normal. Donald Trump, c'est un chien enragé. C'est normal. But I, I, I, am fâché. I am angry. I, I am very mad. I, don't understand this man. It's a, this, this garci, a berk, berk, dégueulasse. Donald Trump, it's a dégueulasse man. Oh, oh I, think, I think, people, Donald Trump, you muy def yop. Bu ñu toogee fii di ko wax, bu yàggee ñu tër. mu am lu ma leen di wax mooy Donald Trump nañ ko football mu génn ci biti parce que kii faalewul jigéen toppatoowul jigéen alors américain américain Hillary White House Hillary Clinton White House I love you ciao ciao bye bye. yes yes américain this is Milton. Donald Trump suma der bi nga xam ne moom la ñu yàq ci biir États-Unis du ko nangu dañu ko préparé dañu ma toppandoo du sama baat tey laa gën a am doole États-Unis tey laa gën a mën a taxawal li xam ne mooy suma gouvernement bu ma taxawee États-Unis jigéen ñi tey dañ ma gën a bëgg samay ji. kenn bëggu la. man mi nga xam te man naa sama desew ci nit ku ñuul koo xam ne yow kese laa toppoon man ak waa Washington ñëpp bàyyi nañ haay doo démissionné ndax li ngay def jigéen bul bàyyi bañaa bàyyi loolu sama lettre de de démission laa jox la ko bàyyi nañ wuy sama ndaay ay my god ñu ngi yàq suma der benn jigéen mënul yàq saaku pomme de terre dinaa gën a góorgóorlu man maa sargal jigéen li ñuy wax loolu daraamu ji Hillary Clinton moo ko def moo ma bëgg a yàqal waaye tay la ay eh, ñun ak jigéen ñi xo ak jigéen yooyu ñëpp bàyyi nañ la parce doo góor gu baax doo nit ku baax ñun ak jigéen xoraay yooyu ñëpp bàyyi nañ la parce baaxoo baaxoo yàq nga société yàq yàq nga société bi yëpp non non baaxoo lii lan la lii lu mu doon man yàqu naa dee ay pexe jigéen la ay pexe Hillary Clinton la lii yëpp dañu ko def pour yàqal ma way yàlla gay doot my god my god my god wuy suma ndaay <laughs> wuy suma ndaay wuy suma ndaay non <laughs> Donald Trump Donald Trump yaa ma rusloo yaa ma rusloo Donald Trump ñun jigéen ñi New York yëpp dañu la bàyyi lu tax bàyyi nañu la amul bàyyi nañu la bu leen ko gëm rusloo Donald Trump tey dama ñëw pour añ sama lettre de démission dama fas yéene man ma démissionné Donald Trump moo ngi nii parce que yow baaxoo ànd ak yow suma gàcce la lettre de démission baa ngi nii dem naa sama yoon bàyyi naa la ko ay ay ay ooy suma ndaay I don't know Hillary Clinton mooy jeeg bu bon Hillary Clinton mooy saytaane Hillary Clinton moom wante lii ak ñoom Obama ñoom a xeex waaye amul man musuma def lu ñaaw jigéen. Donald Trump rusloo nga ñu jigéenu États-Unis yëpp. yow nekk lu ñu lay wax yëpp yaa yow baaxuloo. déedéet yow góor bu bon nga. non naa sama lettre d'émission. non sama lettre mu ngi nii bàyyi naa Donald Trump. léegi ñu ngi dem ci Hillary. non non oui Hillary. non non non non wuy yaay yooy wuy Oy oy. Oy oy. Oy oy oy. Oy oy. Oy oy oy. Oy oy. Oy yàqu naa. Babaama. Abba. Oy. Oy. Oy. Oy. Oy oy. Yoy. Oy oy. 为什么来？Why we sumanai? We ai ai we sumanai. Ai ai we we sumabai. Ai we sumabai. Ai we ai we ai we ai we sumanai we ai ai ai we sumanai. Yeah, yeah, yeah, yeah. Música mm-hmm.